demam nga umpuna mindeef te um na boppub kuy mindeef kudul malaaka ya ko wuuf ak yàlla ak ñemu ko wax yoneen ba ak ënglu badar yori mbiram di ko defar moo tax xamee su demiinu yoneen la ko jox la dala njurbal ba këram malaaka ya sappe ni gorom di ko bijjanti di te di ko sabbaal di ko jox way deeye jokk woon fa moom te bar sàq ne ngi nuyu mbokki jullit yëpp <coughs> rawatina mbokki taalibe yi ñu bokkal wàccaayu liggéeyub centenaire ub sëriñ Touba bi di dëgmal si di leen leeral ay kàddu yu gàtt rek yoo xam ne mënees na koo def ci turu Baye Ahmadul Maxtaar Mbakke bi yónnee ci Cheikh Mouhamadul Moustapha mbakem Cheikh Saliou ngir euh, lu jëm ci wàccaayu centenaire bi ba ma wax ko la ma sëñ bi yónni woon lool moom taxul may leeral ndax loolu euh, loolu taxul may leeral la ca topp moom laa bëgg leeral ci ndigalul sëriñ bi biñ doon waxtaan daf ma ni man de fan yii yëpp sama xel dafa nekkoon ci di xalaat juróomi leeri sëñ Tuubaa yi bàyyi ko ci moom te wuutu ko fi muy juróomi xalifa yi di ci njabootu sëñ Tuubaa kenn ku nekk ñu tuddee la bis ci màggal gi ma ne ko ah, programme yi ñu tëral ci wàccaayu màggal gi sëñ Modou Moustapha moom mel na ne am na ci bis ndax am na bis bu ñuy tuddee bisub Touba waaye suba gi yëpp dañ ko laltaaye la Cheikh Mamadou Moustapha moom lañ ko jagleel waaye nag am na yeneen yu ca topp mënuma yóbbu ma ne ko Euh, le treize lañuy ñuy tàmbali fii ci Touba di bésub Cheikh Mamadou Moustapha am na nag bés bu ñuy def la quinze ca Louga am na itam bu ñuy def la vingt ca Njaareem ak la vingt et un ca Ndakaaru ak beneen bés bu ko juróomeel mooy bu ñu wàcc bu ñu màggalee ba ca suba ga mu ni ma kon juróomi bés yi ma bëggoon mu ngi noonu juróomi xalifa la juróomi bés ngeen am bés bu ci nekk na ngeen ko jagleel kenn ci jabooti sëñ Touba yooyu te ni ngeen koy defee mooy bi jiitu. na doon bisub Cheikh Mouhamadoul Moustapha sëñ fallu moo ca topp kon bis ba ca topp na doon bisub Cheikh Mouhamadoul Fadal muy kon le quinze ci Louga ka ca topp topp ca bis ba ca topp kon le 20 lay doon ca Njaareem kon bisub Cheikh Abdoul Ahad lay doon le 21 moo ca toppaat ca Ndakaaru kon boobu bisub Cheikh Abdoul Khadir lay doon ndax Cheikh Abdoul moo topp ca Cheikh Abdoul Ahad bu ñu màggalee ba ca suba ga am na cérémonie euh, religieuse bu ñuy def mooy bis biy tëj màggal gi mu ni boobu kon nañ ko tudde Cheikh Saliou Mbacké muy juróomi leeri sëñ Touba yi ko fi wóote di juróomi bis yi mu mel na am nañ ci tawfeex ndax ndax tàmbali gi Cheikh Mamadou Moustapha la ci Touba tëjtale itam di Cheikh Saliou Mbacké ci Touba bis bi nag mu ni tudde du tudde tudde teraanga la waaye du bis boo xamante ni dañ koy yëgal njabooti mu mel ni parrain yi yi xew ci jamono ji parrain du loolu ñu koy wax njaboot yi ñuy ñuy ñuy ñuy waajaka yu mel noonu du noonu jëmmi bis bi la ñuy tuddee kenn ku nekk kam ka ka ko yaayoo te sës ca bu loolu amee nag programme ba ngeen tëraloon bu ca dara soppiku waaw na ngeen ko na ngeen ko nose woon ak la ngeen ca la ngeen ca waroon def na ngeen ko tërale woon bu ca dara soppiku jëmmi bis bi la ñuy tuddee kenn ci xalifa yi ka ca toppaat ñu teg ko ca ba juróomi bis yi mat juróomi xalifa yi mat ñi ñuy tudd di doomi Sëriñ Tuubaa loolu nag alhamdulilah day daal di tàbbiwaat ci liggéey bi yaatal ko ni ko Cheikh Mouhamadul Mountakha bëggee woon ndax moo jox ndigal Baye Ahmadul Maxtaar ni ko bés bii nga xamante ni mooy ñëw mooy doon téeméereelu atu sëñ Touba màggal gii ñëw mooy doon téeméereelu atu sëñ Touba ci bi mu ñibbisee Touba ak léegi kon na ngeen ko yëgal bokk yépp te yaatal ko kon mel na ni yaatal gi moom Cheikh Mouhamadul Moustapha tàmbali na ko Cheikh Moustapha Mbàkkeem sëñ Saaliw kon alhamdulilahi rabbil alamin yéen ñi ma bokk liggéey bi yépp it xam ni kàddu yi lii ko waral tey bi ma ko waxee Baye Ahmadul Maxtaar dani ma na ko leeral ba ñëpp yëg ko li moo moo waral li wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu demam nga ump na mindéef te um na boppam kuy mindéef kudul malaaka ya ko wuuf ak yàlla ak ñamu ko wax yoneen ba ak ënglu badar yori mbiram di ko defar moo tax xamee su ca lu wér demiinu yonen la ko jox la dala njurbal ba këram sappe ni gorom di ko bijjanti di gërëm di ko sabbaal di ko jox way deeye jokk woon fa moom te bar sàq ne